bëgg dëgg ak àtte taxul waaye dañ doon ut luy toroxal Ousmane sonk ñëw teg ab xale bu ndaw mu naan def na ma lii jaar na ma fii nangam nangam loolu lañ ci doon jublu waaye ak lu ci munti am rek woo nañ ñu dem nañu ñu may leeral nag ay mbir ci lu gàtt ndax dégg nañu waxkatu lu dul dëgg boobu nga xam ne ci loolu la dëkk ñépp xam ko ne dañoo dakkaloon euh, ndaje ma ndax sama diggante ak aji saan muy jiiñ dañoo amoon xuloo bu fa am walla jàppante ba tax juge bi dakkal ndaje bi loolu ngeen jéggal ma ci kàddu gi waaye ay kàcc la waaye nag kooku moom luy jóge ci moom rek kàcc la ndax léegi rek may ñëw dégg naa gis naa vidéo bu avocat wu Adji Sarr ci boppam weddi loolu lu mu wax nag samay avocat benn interruption moo fa amoon te li ko waral mooy greffier dem na di bind ba benn instant fichier bi mu doon liggéeyee ci ordinateur bi réer ci ordinateur bi mu koy wër wër wër gisu ko ñu nekkoon kon nañu interrompre ba ñu jot a récupérer fichier Word boobu pour mun a continuer waaye jàppante amu fa kii nga xam ne moo ma jiiñ kuy wax waxal yàlla rek ñëw na correct wax wax ju correct doonte avocat moom ko doon essayer ruux pour mu wax xabaabal wala wax leneen lu mu wax waaye defu ko wax ju correct la fa wax manqué wu fa kenn respect à commencer par man mii may profiloo rek di wax ay mbokkam lii ma gis tey seen doom dugal nañ ko ci lu ko ëpp doole xamul ci lu mu ne ku xool xar kanam ak bëtam sax di nga xam ni kii nekkatu fi te ay pression lañuy def ci kawam walla sax ay menaces wala yeneen yu mel noonu amaana sax ragal na ci du pour dundam moo tax ay mbokkam nañ ko jëli ku jur doom doo ko sànni bàyyi ko ak ay loxo jàmbur ay politiciens di ko manipuler ak ay nit yoon yoo xam ne jàpp nañ dañoo war a fayu bàyyi seen doom seen kër di ko manipuler ba tey jii mu nekk lii mu nekk nii ba ci ñi nga xam ne ñooy défendre àq ak yelleef de manière générale waaye ñiy défendre àq ak yelleef ci jigéen ñi nga xale bi ma gis nii sànq nañ te xamatul fu mu nekk leer na ma ni ku ko mënoon génn ci lii tey tey tey mu génn ci kon loolu amu fa wax dëgg yàlla journée bi yépp dégguma fa benn mot bu boo xam ne wax na ko fa moo xam lu jëm ci man wala lu jëm ci ay avocat wala lu jëm ci juge wala lu jëm ci procureur wax nañu tamit nii dañoo bañoon tontu laaj yi loolu amut ndax lu mel nii ñeenti ñeenti kilifa ci biir ñoo am sañ-sañu laaj li ci ëpp solo mooy doyen des juges ndax moom moo yor enquête bi mooy convoqué bu paree jox procureur mu laaj ki ko fa toogal di substitut procureur kooku bu paree daa jox avocat partie civile yi ñu laaj ñu doog a jox avocat défense ñu laaj ki nga xam ne nag mooy ndey bi muy doyen des juges lam fa laaj tontu naa ko donte amoon naa sañ-sañ bañ koo tontu ni ma ko defee ak ñeneen ndax damay fàttali ni moom laata ñu koy jox dossier bi dafa jëloon position daa di bind ci benn face page Facebook benn texte boo xam ne ab mbokkam bu nekk France bokk APR moo ko bindoon di ma attaqué ba tuumaal ma ci mbir mi. xam nga juge dafa am obligation de réserve juge warul waxee n'importe comment rawat nag dossier boo xam ne yow yaa nga Ziguinchor di fa juge d'instruction dossier bi tàkk na réew mi di wax nga dem di publier sa page Facebook loo xam ne day chargé Ousmane Sonko est-ce que kooku xel mun naa nangu tey te li may wax nii waxuma ko par rapport ak jëmmam moom ndax li ma dégg ci moom yépp mooy mus dafa mus góor góorlu nekk juge boo xam ne day góorgóorlu ci jubal waaye est-ce que dossier bu mel ni xel mun naa nangu ñu teg ko ci loxo koo xam ne laata dossier bi di ñëw ci loxoom moom àddu woon na ci ba pare ba condamné Ousmane Sonko kon mënoon naa sëkkund si foofu ne kii duma ko tontu waaye tontu naa ko moom laaj yi mu laaj yëpp tontu naa ko kon su ñu nee tontuwul laaja loolu amut mu des procureur procureur li ma ko waxoon bële passé laa ko wax ndax. procureur administration la ki fa toogoon tey du moom du jëmmam xaw ma ko jàpp naa ni magistrat bu baax la jàpp naa ni kuy def liggéeyam la waaye nag daf fa toogal procureur parquet administration nga xam ne c'est impersonnel c'est abstrait administration boobu mu fa toogal nag ku ko jiite woon ci jamono jooj di Serigne Bassirou bi dafa am ay njombe yu mu def ci dossier bi ci wàllu dossier dañ la ne PV d'enquête bi nga xam ne enquête préliminaire bi mooy njëlbeen bi rek enquête bi ñu confier ko gendarmerie PV boobu gendarmerie des procureur donte moom mooy le maître des poursuites amul amul sañ-sañ ci changer PV boobu waaye PV bi nga xam ne moom la gendarmerie defoon Serigne Bassirou Gueye da koo soppi muy faute bu garaaw garaaw garaaw ci magistrat daal ci jël ay mbir yoo xam ne. daf ma doon setal man mu génne ko ci PV bi ba pare dem ut yeneen mbir yoo xam ne daf may daf may essayé tilimal mu yokk ko ci TV bi te newu ci woon kon kooku li mu def dafa garaaw moo tax ma jël di porter ko plainte moom ñaari plainte laa déposé benn bi maa ngi ko déposé cour suprême muy plainte au pénal ñu war koo atte parce que li mu def lu garaaw la ñaareel ma déposé ko igage nga xam ne plainte disciplinaire la pour ñu def euh, ñu ñu ñu ubbi euh, de une procédure disciplinaire teg ko ci kawam moo tax su ngeen gisee Macky Sall gaawantu nommé ko of nag sama plainte moo tax ma wax leen ko tey xam ngeen ndax lan parce que ñaari plainte yooyu ma déposé bi ca njëkk ci cour suprême pour mu mun a jàll faaw rek ministre de la justice nangu cour suprême day bind ministre la justice ne ko ah am na magistrat bu ñu tuumal dara waaye mënuñu ko àtte tant que yow joxoo sa autorisation teen xam ngeen ni ah man de foogu ma ne Ismaïla Madior Fall su ma ne Ismaïla Madior Fall nag wax naa Macky Sall dina joxe autorisation pour ñu àtte Serigne Bassirou Guèye kon boobu ñëw mun nañ ko bopp bloqué foofu waaye bi nga xam ne moom laa déposé ci inspection général bi nga xam ne mooy gérer biir Euh, lépp li nga xam ne mbirum discipline la mbirum yar ak yarin ak doxalin ci biir magistrature boobu aajowul ñu demander autorisation kon ñoom mënoon nañu commencer seen procédure